information di yaakaar ne kon passé ngeen weekend bu neex lu mu ci manti doon ndax noo leen manti yeewoo euh, seen dose matinale da ngeen koy jël ngir mën a passer une très bonne journée seen dose matinale moo di li yéene kaay xëy euh, dëxëñ waaye it euh, jotaay xibaar bi si la bokk monsieur le maire bu goxub Kumbam Lamb ànd seex monsieur le maire bu Géejawaay naka yow gi yow gaa ngi nii rek la naka it tey sant yàlla biir naka gox ba <laughs> lu ñuy wax waa dëkk ba lu ñuy wax waa koñ ba loolu laa wax lu ñuy wax waa koñ ba <laughs> <laughs> Malick Gakou loolu laa ko wax démb ci bi. dëgg la. <laughs> bu duggoon lan lay waa koñ ba. <laughs> waaye léegi ñu dugg nag. ma ne Xafoor Touré. <laughs> lay wax waa koñ ba ndaamal Kajoor nag. non c'est am na ñoo xam ne musa le maire am na ay jeunes yoo xam ne. Hmm. seen leader. da leen duggal ci ay xat-xat. ay xat yu méttee métti. yu ay xat-xat yu métti Euh, dañ di dañ di dañ di dañ di ay gor. Mhm. nekk ay jeunes. xam nga ay futurs dirigeants di yëngu ci ay instances su parti di defendre le leader. Mhm. jour et nuit corps et di rey seen bopp. xam nga léegi leaders yi war nañuy bàyyi xel cette génération là ces futurs cadres ces futurs dirigeants. Mhm. bañ leen di dugal ci yenn ci ay xat-xat. moo tax yenn yi buñ koy def ñoom les politiques là war nañuy sóoraale bu baax a baax man waxuma sax. dinosaures yi màgget yi nga xam ne ah, ñoo nekk ñoo garaaw moom dañuy accroché mais daf ci am ay boo yoo xam ne dañ leen di défendre gëm leen gëm leen bec ongle merci beaucoup gëm seen vision seen seen gis-gis dégg parce que man biir réew mi man dama ci bëri ay du waxuma xarit de may ay frère mhm. ay frère yoo xam ne man lu ma bind dañuy commenté ñoom lu ñu bind man damay commenté mhm. mais léeg-léeg suñu leader yi dañuy dugal jeunes ci ay xat-xat yoo xam ne même boo leen wooyee sax dañuy am kersa jël la te duñ bàyyi leader bi. parce que gëm nañ ko. yàlla bi ndeewu leen wax waxet gëm-gëm dafa fort yàlla nattoo nga ànd ak njiit loo xam ne wax waxet lay def lu mu wax tey bu subaa mën na caa génn yow da lay dugal ci xat-xat. cuubu parce que yow doo kat juddoo noonu bokkoo ci famille yooyu. gor moom lu rus. way moo tax moo tax suñ leader yi war nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax parce que xam nga li ñuy wax fii tamit keroog. léegi léeg ñu ne Ablaye Wade da doon dugg di génn Ablaye Wade jamonoom ak léegi bokkul. réseaux sociaux yi melul woon nii ñu lay génneel vaar di la monteel ay bopp mbaam xuux di la defal ay bopp mbaam sëf. te gars yi ak ñu ci ay. sa njaboot di ko gis. déggoo ma de yooyu amul woon. ça n'honore pas de. oui. Mhm. et puis Ablaye Wade jamonoom fii ñaata opposant ñoo fi on nag. Mhm. waa gauche yi ñoom ñoo fi nekkoon te ñooñu ay parti contribution lañ yoo xamante ni lu yàlla xam doy na. Mhm. mais guddi ñu nii nii nii nii nii nii gone yi benn dañoo jàng. kay lépp lañ a jàng sax seen i leader. lépp lañ leen ay lijaasa déggoo ma de moo tax. dañ lay fàttali démb ci saa si. Ah, dañ lay fàttali démb ci saa si. et gis nga gis nga nit. day hmm. programme yàlla programmé. Hmm. programme yàlla nag. del ñaan yàlla chaque jour muy méngoo ak yow li nga programmé. Hmm. xam nga ñenn ñi ñu ngi naan ay Idriss Seck dafa dem dugg parce que Macky Sall. mën na nekk successeur am bu ëllëgee mu jox ko deux mille vingt quatre. le défunt Macky Sall mën na organiser ay élection ba pare lal léppam ba yaakaar ne moom moo ci ne. Mhm. jël idi teg idi daal. dafa leer dafa leer. Wade ku ne woon dina gagné Abdou Diouf kan moo koy gëm. Mhm. Abdou Diouf ku ne woon dina gagné dina dina eh, Ablaye Wade Macky dina ko gagné. Mhm. constance bi daal war nañ ciy bàyyi xel. yàlla kàddu démb méngoog say jëfi tey. Macky Sall négocié wul nguur gi de. Mhm. Ablaye Wade négocier wul nguuram. dafa leer. di négocier nguur nag doo ci jëlee dara lu jéppi. kese askan wi bàyyi la. point lii ñëw ëllëg nag mën nga négocier ba jot ci de mais balaa nga cay jot li ngay daj ci ay wax yu ñaaw li ngay daj ci saaga li ngay daj ci ay ay ay ay. <laughs> sa jabar sa yàlla yàlla baax na yàlla baax na. monsieur le maire monsieur le maire. en tout cas samedi na nga ñëw. <laughs> samedi na nga ñëw yow samedi il ñu wax maa ngi ñëw. samedi na nga ñëw. samedi maa ngi ñëw ñu wax. waaw Ndeye Awa Ndiaye. Hmm. Thiat Laye Ablaye Diagne sama ñees bi Ndeye Fatou Conté. Hmm. ak ñu dinañ ñëw sama xarit si la yooyu nga naan ñu ngi waajal ah, ko Bougane Gueye Dany sax dama koy invité. ñëw meeting bu rëy bi ah. sunu sunu bu rëy bi. ñëw de nga ñëw de baax na xat xat ñi ñi génn ci ci Idriss Seck dem ñoom Nafissatou Diop Cissé yooyu Mm-hmm. ay ñoom Omar Gueye mm-hmm. li leen gone réew mi yekk fii ci réseau sociaux yi mm. waaye léegi ño léegi waaye léegi loolu nan lay demee doy na waar doy na waar ayca monsieur le maire garaaw dañ dañ ko waxtaane waat amul benn problème mm-hmm. ayca <laughs> monsieur le maire ñu dem ci <laughs> li yéene kaay xëy dëxëñ yow doone ko <laughs> ma de ñu dem ayca balaa may dee ñu naan Macky Sall daa aay Macky Sall li mu yor ko yàlla baax na yàlla yàlla bëri na sa tur. aayul de. appareil yu ni toll ku ko yor ay ndeysaan. appareil yu état. ah mais dañu naan dara ñi mu nekkal dong ñoo bëgg nguur. lool loolu la l'enquête wax. enquête daal nee na Macky Sall brouillé brouillé na carte yëpp. Hmm. ah oui. brouillé na carte maa ngi nii. li nekkoon ci wetam wër ko yëpp football na leen. Hmm. mooy délit d'ambition ma loon wax. boo bëggee nekk maire wala député wala président. Mhm. ci jamonoy Macky Sall gii tey gars yi la. dafa leer délit d'ambition dafa mel nañ koo dugal ci euh, euh, code pénal bi ku bëgg dara tey nga dee. éliminé mhm. nañ présidentiable yëpp lañ éliminé léegi nag njiitu parti mi Idrissa Seck affaire bi. firi wiri la non. Euh, bul bi tourné na configuration bu garaaw a garaaw. ëtt politique bi day soppeeku. oui moo tax Théodore Montaigne nee na yaakaar ne Idrissa Seck Macky Sall da koo dugal ci nguur gi ngir tëcc ko ngir ngir ngir rey opposition bi juum nañu. Mhm. mais kuy rey opposition wala di ko tëcc réduire l' opposition à sa plus simple expression mais kooku doo ko fal. Mhm. dëgg loolu dëgg. doo ko fal de. day dooleel rawatina leen punkal mu mel ni Idrissa Seck. Mhm. day caaxaan Idrissa barki yonent bi. dafa politique dafa politique politique. ah terminé na kaay ñëw ci. gis nga ko punkal yëpp la Macky Sall di rotal. punkal yëpp baron yëpp. Amadou Ba woon ndax nañ ko. dem na Mimi Touré. dem na Aly Ngouille Ndiaye. kooko jaaxal ñëpp Matar Cissé out. sa Seck nag mooy lëf li. tey le cas polémique. Bougane Gueye Dany nee na ñoom ñoo jàppale woon Idrissa Seck 2019. Mm-hmm. présidentielle Idi 2019. démarqué nañu ci lii sa Seck def. ah ok ñoom partage wu ñu. dañuy continuer xeex ngir wàllum koom-koomu réew mi ak dundu askan bi kon baax na waaw Babacar Diop FDS lay gëlawaar. ñoom it nee nañu ñoo jàppale woon Idriss Seck day démarqué nañu. ñoom nañu continuer xeex ci yorin bu bon gi nga xam ne maanaam moom la Macky Sall yoree réew mi de. Mm-hmm. bi. man mm-hmm. combat lay engagé laa man relance économique. waaw ah. Idriss Seck waxoon ne conseil économique bi ak au. au conseil bii nii alal ju bëri yow ñu xëy dénk la ko. Mm-hmm. waaye ñu koy professeur a ngi nii. inna lillahi dem si yàlla waaw nañ ko ñaanal yàlla xare wal fajiri ñëw ak ci. ñu ngi nii waa idée Macky kan mooy rey sa morom. looloo jar a laaj de. qui va tuer l'autre xool leen ñi doon yërnu CSM bi yëpp dàq na leen. tey Mimi Touré ak Matar Cissé Ba Nguy. Mm. Mbaw ñoom ñëpp waaw kay. ñu ngi nii <laughs> rob ci sëg si ñoom ñu ngi doon ay dofee ak dofina Amadou Ba ak Nguy mm. na leen Idrissa nag. fal gii nga xam ne moom lañ ko fal conseil économique ak kaddu yu démbam yaag yu tayya mm-hmm. idi bal la jël dóor ko boppam ci bopp loolu la journal bi wax parce que sa sec moo waxoon ne lépp lu xeetoo ak wàllum décret ñu signeel ma fal ma kooku moom xalaatatuma ko lenn daa lay mën a ne ma nekk mm-hmm. conseil municipal wala conseil départemental nekk député wala président de la république maanaam loo xam ne askan wee ma ko jox sa moo doon wax de démb rek décret lañ ko moo taxit baara koy baara koy rey baara koy rey laay sikundik sikundik ni junne jombal na la maag Pape Alé lii lañ ko doon wooyee du maam waaye waaye waaye idi ci boppam idi ci boppam moo mujj jombi moo doon jombal nit ñi waaye tey yaa jombi daw baar yu bari réew mi quotidien ñëw ak ñun ci gouvernement bi ak conseil économique social mhm. Macky Sall daal recruté na idi daal di sonobe nag kii di Ablaye Wade Ablaye Wade Wade dee da koo yëgulul sax yaramam donc mhm. Wade moom mhm. Vox Populi li ñëwal ngeen ci compagnie yi nga xam ne moom la président yëkkati. Mhm. Macky dëggal na dil bi dëggal na dil bi ne dil ba am na ba pare liquider na nag ñi nga xam ne dañoo amoon ay ambition Idrissa Seck ne xam nga dañ koo yàgg tàggee ci wàllum politique ne Idi dee mhm. na. ba léegi maa ngi dund. Idi nee na ba léegi maa ngi dund maa ngi dund. Idi nee na ba léegi nii maa ngi dund dégg nga loolu. Mhm. dégg critique yéene kaay ne ko defoo lu dul wor. yaa ngi dugg hmm? wóor rek nga def. Idi. c'est la haute trahison. yéen kaay bay wax de. waaw su ah, man man laa ci doon rek. man lu ma ci. la wax démb ca télé boobu maa ko wax. waaye tey déglu ma rek. yow ci jamono joo xam ni. xëccoo xuloo xiiroo ngaayoo mi ngi am ci biir opposition bi ak kan moo koy jiite. ñi gën a bëri ñëpp. manqué nañ ne Idriss Seck est la chef de l'opposition. yaa jël deuxième ci élection présidentielle nga incarné chef de l'opposition moom meeru Thiès woon jël jaasi hmm. cor ay naataango opposant yépp ne saax gàddu ay armam ay bagaasam kili kalak dem toog ca Macky waaw ana léegi kan mooy chef de l'opposition ah moom la ñuy moom la ñuy laaj diirit ah deuxième lañ wax kuy gis a kuy gis pay naan deux baa mën a moo jaaxal ñëpp deux ba neewatu fa kay ana trois ba trois ñëw <laughs> trois ba day daa daa constant barki yonent li na fàng kenn du ko jeex. non réew mi neex. li del idée ngi nii nag. Mm-hmm. voilà daal a ngi nii. voilà bu dëkk bi soxlaa daal. lu mu jàppoon da koy ba. loolu la Antoine Diome a ngi nii moo remplacé Aly Ngouille. Mm-hmm. Antoine nag moom Diome. moo nekkoon ca xale Khalifa Sall ak Karim Wade. andil lañ ko vaar kon. yow moom yow moom mënoo set yow monsieur le procureur yow moom yow yow moom. Antoine Diome. feeñ nga <laughs> yow. <laughs> <laughs> réew mi réew il faut que moom ñuy wax. mais réew moo xam ne euh. Macky Sall bëgg na ñëpp ñëw far ci côté waaye loolu yàlla sax amu ko. non non unanimité kenn ah waaye yow non mais Macky mii daal man jaaxal na ma. Mm-hmm. les seco yéene kaay ñëwoon ñun ci Macky Sall ngi nii napp na weneen jën wu rëy. Mm. wutadu ngi nii waaye nag yeneen nomination ñu ngi leen di xaar. Mm-hmm. mi ngi nii. am na yeneen nomination yi toog di xaar kon donc mën nañ espérer ba léegi. Abdou Karim Fofana ak Omar Youm. Ah. dañoo dem dem yoo xam ne kenn xalaatu ko woon ndeysaan. <laughs> changement yu xoot yiñ doon xaar. mu mujjul jur dara lu dul ay mbóot. réanim ak waaye yow mi fan yoo xam ne ni ñu toog xaar yaakaar ne ay gandi lii lu lii du remaniement. la xam naa kay moo tax gisoo idée jël bës. wax fu mu nekk nii ci ministre yi la wax. Antoine Diome kii magistrat bii moom la moom lañ mujj dénk léegi élection yi kii. Eh kii kii nga yaakaar ne Macky Sall mën naa gañe kenn mën na koo gañe ci réew mi le témoin yéen a kaay ñëw ñu ci Macky Sall mi libéralisé. Mhm. gouvernement bi libéraux yi doo nga fa ne. kese libéraux yi nii fal nañ ko am na ñaari ministre réew mi dugg nañu Omar Sarr ex numéro 2 PRS ministre mine waa présidentiable yi dàq nañ leen non mais yi lan lay wax waa koñ ba. <laughs> la la ñeneen ñi di wax rek. voilà jamonoy sekk sekk yaa ngi nii ak sàll sàll yi lañ mhm. toll. idée ngi nii moo jiitale conseil économique. Macky Sall moom sanctionné na ñi nga xam ne ñëpp ay borom bët yi lañ amoon ay ambition. teg ay satatal sàll affaire étrangère. yéen la rek. yéen la yéen kaay ñëw ci Macky Sall mi écrasé ay ba pare lancé Idrissa Seck. Mm. Khalifa Sall moom commencé na campagne am ba parcelle. barki de ma nga woon sa góo fay kon baax na borom ñaari air yaa ngi nii républicain ak rassembleur rassembleur <laughs> a rassembleur rassembleur <laughs> ah, rassembleur wala dealer mooy euh, waaye bu doon léegi fan la jëm am na comme am na yeneen nomination ñoo ngi toog di xaar fii lan lañ ko fi joxaat ah mais dara man man man am lu mu téye de man am lu ko dénk diggal na dil bi idi moo wane na boppam samay kàddu bi dëggal na diin ba pare ubbil na nag ab buntu Ousmane Sonko la ubbil la ubbil buntu ngir yoonu pale ba. ne ko boulevard la ko ubbil. tapis rouge ba yàlla xuj a bajaan waaw. mu nekk tapis rouge. waaw évidence ñu ngi nii sacrifié na ëttam bi yëpp ngir Idrissa Seck. tey Macky Macky sacrifie sa cour. gis nga la mm-hmm. cour du roi la dañ leen a sacrifié sacrifié nañ leen ñoom ñi direct news ñëw ak ci. waa mbuur mbuur moom daaneel lañ leen seen doom ji dàq nañ ko. moom noonu. kon Mbour mii Pape Faye nee na Omar Youm mooy meilleur ministre dàq nañ ko. pare na ci kon. yàgg na. Omar Youm kon moom it. day xaar lan lay wax waa Mbour. ñii moomu jaaxal monsieur le maire. ñi lay bari na de monsieur le maire. non Fatou war a lay ak a bari. yàlla suñu borom xoolal. yàlla baax na. gars yi ambitieux yëpp dàq nañ leen. ñoom ñëpp dem na jàppale nag. ñii ñu dàq nii. Hmm. xam nga moo tax jaruñ jàppale. koo ci wax mu ne la no man réeroo maak moom vraiment je remercie le président de la amul xeex. waaw ñoom ñu ngi si parti ba léegi. waaye wala man yi bàyyi leen ñu nekk ci parti bi toog yaru jàpp seen mor sa njàmbur. Eh. amuñoo ko waa benn problème. Eh. Eh, léegi ñoom la rek. li ci kanam raw li gën. ñun askan wi dañoo am problème ak Macky. Hmm. xale yaa ngi dee ci géej gi. waaw loolooy kaa gi mitti na. loolooy kaa seen o yàpp na nit ñi ndox mi facture bi seer gi mu seer. Hmm. courant bi moom woyofal gi ñu doon wax. léegi diisal la tudd. en rek te di daw rek te woo wooyofal gii ñu doon wax Sénélec diisal la diisal la mujjee doon yàlla baax na problème bii lañ amal ma ñoom ñi ñu dàq na comme xëy na gouvernement bu bees bi dan danañ andi saafara <laughs> tey njàpp ban la ñaar fukki ñaar fukki junni ñaar fukki junni ak juróom ci ay milliards ñu jox la ko ci juróom-ñetti at mhm. réglé woo suñuy problème juróom-ñetti at ñetti at yi des nga bëgg fee réglé suñu problème nañ dem rek. doy na waat Aly Ngouille Ndiaye ma kan la ñu batale pour ñu tekki masque yi kan la ñu batale. ministre de l'intérieur. magistrat bi jom moo war liggéey lu am jom. Ah. jom moom war liggéey lu am jom. yàlla kooku de lim fi liggéey ni ñi gis nañ ko. Ah, barki ah. am jom. xam naa ni de ñi ànd ak Karim ak ñi ànd ak Khalifa ak ñi ànd ak Sonko. Hmm. ñi ànd ak Babacar Diop ñi ànd ak Bougane Gueye ñu ànd ak. Euh, akan gàkku ak ñoom Abdoul Mbaye mhm. su ma leen seen booy ne ci réseaux sociaux ñi ngay cax-caxi rek may rey waaye am na ñoo xam ne xat-xat gi nekk diggante démb ak tey insomnie du ñu nelaw ndeysaan politique dafa metti nag rawatina fii ci réew Sénégal sa waay tey moom tay njàbban la jaaxle njaabu jaaxle toog si bopp koñ téye bopp bi di laaj lu xew yàlla baax na yàlla bëri na sutura amul benn problème monsieur le maire njaabu jaaxle rek. lu mu ti yàggul. njaabu jaaxle rek. <laughs> ay <laughs> jaajëfal ko baax monsieur le maire bu. Euh,